asalaamaaleykum mbokk yi safo di seetaan xaas TV <laughs> sëñ bi <laughs> moom damay jël oto ma buñ ma yàqal fii. <laughs> ginnaaw ba la nuyoo ba pare. yow man naturellement wóoluwuma la. waaw lu ba nee fu ne nga nekk fa lu ne nga dugg ca. Ah, njëw. Ah, jaww gi fu ne. ginnaaw bi ñu nuyoo. di siyaar di ñaan réew mi yàlla def fi jàmm. Sénégal na fi yàlla def jàmm. am na lu nekk ci biir ñag bi. Mm-hmm. di bëtt ñag bi. Mm. riir uti ca biti. yàlla bu ñu fekk ci tool bi kon lay ruur ca biir ñag ba war bëtt uti ca biti yàlla na ko yàlla fànk ba du génne biir ñag bi pexe bi wër mm. di jóg ku la ni baax na daf lay nax réew mi dal la laaj réew mi jàmm la laaj nañu yërëm nit ñi yërmande mm. yàlla boo gisee mu sàkk jaam mm, ñu ni yàlla ku ko ëpp yërmande amul ci kaw suuf te yàlla amul lu dul jaamam yi mooy nit ñi kon boo yërëmee nit ñi rek yàlla yërëm la des fois nga yërëm nit fekk yërëm gi mu yërëm nit ñi la ko yàlla dimbali nit boo ko bëggee toroxal rek yàlla wan la boppam réew mi dafa laaj dal réew mi dafa laaj jàmm te jaw maa ngi lay wax fii euh, pënd ba ca biir tool ba mm-hmm. ni bërit jug mm-hmm. loo ne lay yëkkati waaye lu diis pënd ba du ko yëkkati mm-hmm. day taxal yi fi nañ dal yàlla pare na. Mm-hmm. jaw mm. surprise wax naa la ko fii. billahi lazi mooy am ci élection yi. <laughs> giiñal naa la ci alquran. kiñ naan mooy président de la république di koy joxañ mm. jaw dina ni ah. xam nga lu tax parce que loo gis rek dafa gën te jaw olof nee na bukki wiiri wiiri am ñu ci teg ñi bu ndaari neexoon yiiru du am déedéet kon ñoo ñu dégguñu hmm. ndaari balaa neex nakari hmm. la waral wiiri am hmm. naqari ndaaree ko waral waaye bu neexoon kooku day toog te boo toogee yaa fuus yàlla bu la tegee nattu pour yëkkati la kii yor réew mi moment bi bu président Macky Sall demee ñu ngi koy ñaanal au euh, au passage xam nga ñu koy ñaanal ça veut dire gis nga man damay wax benn affaire man nit booy woote jàmm rek ànd naag yow de waaye nag ngala da ngay woote na ko jàmm rek lal nag euh, boo am benn galgal ndax àdduna amul solo te réew mi ñun ñoo ko bokk. mais candidat hmm. léegi dootuñu ko mayati jàmm que élection amul mba man nag j'espère que yaakaar naa comme moom moo toog mu ni la deux moom bokkatul. le deux bokkatul comme na mu toogee woon ni démuma troisième mandat am ñu ko félicité mu toogaat ni la deux moom bokkatuma ça veut dire dañ ba le deux. xam nga lu tax xam nga lu tax euh, na yëf yi ñu yóbbu ko fañ ko yóbbu gis nga Jaw euh, olof nee na booy dem ba xamatoo fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge mais boo forcé rek wallahi baaxul te te te réew mi ba billaahi réew mi dafa laaj dal laaj jàmm président Ousmane Sonko lu mu gërëm waajuram lu mu euh, tatagal waajuram doyut liggéey ndey moo ko wallu koo xam ne lu ne def nañ la ko lu ne tey yaa ngi ci biir mel na yaa ngi ci biti yaa ngi ci biir ñëpp yow la ñuy tudd saaba veut dafa am loo xam ne man dafa ko gëm xam la dama gëm ci moom mooy liggéey kat man dama gëm liggéey ba xamal dama gëm liggéey dëkk mënta avancer ci wax dëkk mun ta avancer ci nii nangam nangam tëjul nga liggéey euh, dama déglu Jibi Gueye ndeysaan maa ngi koy nuyoo passage c'est protocole mu wax wax bu am solo mu ne Ousmane Sonko ngi fa mu ne. di wàcce kaamil. sport mm-hmm. récupéré mm-hmm. di bind ay livre am man loolu ma neex ci moom mm-hmm. parce que nit foo nekk rek am na tegtal bu yàlla dogal ci loolu mais bu fa dem rek toog noonu comme yàcc Serigne Cheikh nee na yàcc rek wóorul man côté boobu dama ci naw président Ousmane Sonko mooy dafa gëm li mu doon gëm ni perte de temps amul man loolu laa gëm kon nañu wàññi wax ci te liggéey Sénégal foofu la tool xam nga léegi da xam nga léegi da bari bëri xam-xam yi. dafa manqué. Mhm. ma ma toog mhm. nga am si may man ak sama gars yi. Mhm. bon biñ nee xam-xam. mooy ki xam di xamle moo tax ñu ne xam-xam. ki xam te xamlewul kooku doo ko woowee borom xam-xam. Mm, déedéet. Mm. dafa xamul. Ah, ah, <laughs> daa xamul. ki xam day bëgg a xamle. ndax lu baax boo ko yore ngay bëgg mu tas waaye boo gisee du ma joxe lu baax daa gënul boo yoree lu ñuy nëbb li ñuy tere da koy làkk mooy ci nit ñi am na ñoo xam ni kenn mënu leen a defar ndax seen jikko yàqu na mënoo leen a ñaanal ndax automatiquement seen téye di sax mayu leen ko nee naa la fii des fois sax nga gis nit euh, jaw billaahi lazi laa ilaaha illaa muy mu lay compter lim def wala coono bi mu sonni ci àdduna tëj ko dana la wax jikkoom ci yenn yoo xam ni moo ko dóobee loolu tey jaw lépp dañ koy jël delloo ko ci yàlla xam nga lu tax sëriñ ba dañuy bërët jug ñii dem jàngi xam-xam ñii yàlla jagleel leen ko ñii doon ko yàlla ni la kaay garab gii ngay wër ci àll bi tey hmm. man yàlla maa ko saxal da am na yenn àll yoo xam ne garab ga fa ne nit jiwu ko da dem fekk ko fa kon lan moo saxal garab googu ci yërmande yàlla la garab googu sax ngir barxam ba mu war a faj wala ngir diw ba mu war a faj ëllëg ja war naa mën a dox ba daje garab gii parce que yàlla daram du hasard yàlla jël tey ni am na ci sama jaam yi ñenn ñu ma xamal secret yooyu ci ru garab jinne ñëw ni e nekk naa ndaw buy nekk ndaw dem na ci xay garab ka moo tax jinne ñimewul garab ba xool mësu loo gis ci àdduna ni ba muy nekk ndaw lii la gën a bëgg bi màggee lii la gën a ragal noo ko jàngate parce que safara bi mu doon a tax yaa ngi mu ni déedéet waaye nee naa bëreet ñu ni ko fan mu ni dem naa dëkk ci guy rab génn ne ah ah man natt naa sama bopp ci ron dem naa ñibbi géej jinne ni déedéet te lépp di benn te wute mu ngi mel ni nga di nit ni sinuwaa ba am na loo attan te tubaab attanu ko mm-hmm. la am na loo attan beneen xeetu nit attanu ko. jinne ni defuma. Mm. ñu ko nooy def mu ni déedéet damay dem dëkki ñu ne ko ci lan mu ni ci euh, mbalit ci sën di naaw ci jaww ji rab ni man damay dem ca ndox ñu ne ko lu tax mu ni parce que sama melo lan la jasit te ci ndox laa dëkk ndox duma ma sonal ah, léegi lu tax bee. ñimi bii bii mën a dëkk ci dof bee dëkk lu tax parce que bii teg xoolal kii di lii kii di lii te duñu sax séyante xoolal tuur da ngay gis kii tuuram di jasit kii tuuram di bar kii tuuram di fas nga gis koo xam ne jalangam jëmm ju ñuul kokk lay doon ñii doon tubaab da ngay gis jigéen boo xam ne rabam lu mu lay wax buy ñëw di sëy ak moom jëmmi lan lay ñëwee tubaab parce que rabam tubaab la jinne bi ko doon tubaab la nga gis ñoo xam ne tey bu la bëggee dofloo bu dee tey jinne yéefar dafay ñëw laal bopp bi yërmande puus dootoo xalaat lu rafet. lu bon xool lu rafet ci nit. mu yàq sa xol nan la koy yàqee mooy da koy tàngal ba maare day taali indil la loo xam ni maare taali parce que li ngay gën li muy yàqee sa xol mooy alxuraan dootoo ko sax bëgg a déglu sa téléphone bi booy seetaan dalay yóbbu feneen parce que lu baax dalay gaaw gaawal jàll parce que moment boobu fees na dell ci yow ba di la contrôler booy seetaan fii lu am njariñ puus léegi lu la amal njariñ doo fa taxaw parce que dina leen yow Souleymane Diaw mm. bul fàtte ni xooloo ma loolu lu baax mm. Souleymane Diaw ni ti bëgg a julli mu ni kii xamul daal di lay sol ngelaw yaram ba fudd jaw ni xaaral ma xaar tuuti julli tisbaar tëbal tàkkusaan abaal ah, ma bàyyi ba suba ma julli noonu la koy jàppee ak yow dem ba génne ci sa xol ci jaamu yàlla mm. ah léegi ñu ni jaw jàppul lu tax ndox fu mu fekk safara fay ko kon boo jàppoo lay tàng fay na dooleem jeex na yaa ma wax ci xam-xam yaa <laughs> ngi dégg kon boo jàppoo am nga sutura mm. ci côté boobu nga sëy ak sa soxna takk sobe xoolal tey bari ñoom bu ñu takkee sobe seen yaram day tàng day diis kenn ba duñ ko attan mm-hmm. lan moo tax parce que a boobu dooleem ci moom maare ci yow maare day taali ngir sobe bi nga àndal moment bi nga nekkee sa soxna ba pare moo tax ñuy bëgg sobe bu mu yàgg ci yaramu nit parce que day dooleel jinne yéefar léegi li waral mu am puissance moom rab Souleymane jaw mën a nekk ak soxnaam wala keneen mën a nekk ak soxnaam tuur mën yi ci moom mu jëlaat mën yi génnewaat ko waaw wala Souleymane jaw wala keneen war a tuur mën yóbbu mu ka bloqué mën yóbbu du génn. taw wala Souleymane Diop bëgg ak ci soxnaam mu mu mu ne bërët mu raye ko bien léegi ngay xalaat nii war sa soxna nekk ci sa wet nga jéppi ko doo ko nopp di sa ngay séy ak sa soxna mu lay jox beneen beneen jigéen booy wat sa banteel kooku ngay xalaat pour àgg yow. Ah? noppi rek ma suturaal la. Ah, yaa ngi léegi kon. <laughs> yaa toog jaw yaa ngi dégg mu nekk lu doy waar léegi yàlla ni la kaay Souleymane Diaw ma dimbali la ci loolu nga ni ko lan mu ni booy tëdd guddi jàppul nga door a tëdd sa soxna jàppul nga door a tëdd dooleem jeex na foofu parce que li nga masaa ci sa bopp wàccee na lu bon li mu defoon ci sa xel kay xalaat loolu nopp yi nga kii mënatoo dégg loolu xalaat ba dem na gàllax ndiku bi gémmiñ ba am na lu mu génne mooy la nga waxoon ca wax bu neex bu la seytaane bi war a xalaat loo mu ni la déedéet ndax ba nga gàllax ndikoo gémmiñ ba mënatul xalaat lool loolu puus na kon jaw jàppul deuxièmement wa wax kay wa wa déedéet non parce que bien sûr parce que même safara boobu moo mën a toog ci xolu Souleymane Diaw mii mm. mais mu yeewu kenn defu ko dara mu yeewu rek mer soxna sox mun ko may ma bu bu soloo ñëw mun ko lan la am na ñoo xam ne sa jabar bu ne la kaay ñu photo wu nga bëgg nga bëgg koo rey parce que li nga àndal dafa fiir luy bonheur ci sa jabar bëgg ko mm, day fiir day fiir nga ci sa jabar bu ñëwee jige la yow da da lay yokk tàngoor même boo taaloon kilim da ngay tàng da ngay xat puusal tuuti waay wala ngay wala xoola yaa ngi ko jéppi ci sa xol doon nekk waxoo ko jaw mi xam na li may wax. que moment boobu nekkatul yow. nit am parti boo xam moom nit la am parti boo xam daf koy dominer mooy ki mu dominer bañ tëral ko hôpital te xamul fu ne mooy ki mu dominer ba muy for sagar ñëw fekk euh, lekk bu kii ci mbalit mu koy lekk te yëgu ne mu ngi koy lekk. parce que dominé na ko. Mm-hmm. ñu ni nit. Mm-hmm. dof du wàcc ñu baal ma ci kàddu gi lu tax du wàcc. Mm-hmm. parce que xel ma dodul tey ndax amul xel. waaw xel mu mooy waral wàccu. léegi boo amul xel doo sa xel du tey kon dof mënul wàccu ndax amul xel mu muy tiimee loolu. mën a lekk lu ne te du wàccu. waa léegi lan moo contrôler kooku moom tey ba mu mën a dem lekk loolu tëju ko parce que am na lu toog ci xelam ba dindi partenaire bi foofu ci moom mooy moment bi mu koy dindi ci jabar mu taxaw poñe jëkkër ji di ko saaga naan ko bëggatuma la parce que moment boobu nit ki nekkatul nañu jël jëmmi yëf ndaw ñëw caw yàlla ni la eh juddu na nag de liir bi joo yuuxu ñu ne bu liiru guddi bu jooy am na lu mu gis waa léegi lan moo tax liir di gis di gis màgg gis gi di wàññeeku gis bi di wàññeeku gis bi di ba ba gisatul te pourtant moment bi muy nekk liir mu ngi gis des fois nga ji liir xul li bët yi am na lu mu gis waaye léegi jaw lan moo tax gis gi wàññeeku parce que jaw nekk na liir màgg di xool leen lu bokkut ak lee loolu dem na ba wàññi leeraayu bët bi te mënoo gis lii mënoo gis lee lii rek nga mën a kon di gis mooy gis-gisu xool baay commencé di lëndëm parce que nit am na beneen gis yoo xam ne ci biir xool bi la moo tax am silmaxa yoo xam ne mën nañ di dox parce que ci xool ba la ñuy gisee. waaw waaw waaw loolu dama koy ah, ah, ah, léegi même xool boobu moo waral nag ba mu juddoo rab bi ne takk xool ni he kii xool bi ni mu sellee kii ku baax la war a doon duñ seetaan loolu. paji ji am na foofu responsabilité yaay ji am na responsabilité parce que ñi jur tey xale bi indiwul dara jaw xamul dara kon papa ja moom war naa taxaw pour xale bi tenir ko ci lan première fois cat deuxième fois naa ko sàmmal boppam karaw ga ma watee xale ba rek tag duma ma ko sànni dañ ko daan takk ci morso am yéen ca boole def ca saabu baag lañ set baag yëpp waaye léegi nga ci ñoom bu ñu watee xale saabu ba réer na lañ set ba réer na lépp réer na xale boobu yaa ngi koy commencé indil te da nga daan dégg ñu ni la picc rek bu jëlee karawu xale boobu yóbbu ko mun naa dof ci sens yi bu koy tàggee tàgg yóbbu garaw gi ci tàgg xale bi mari day tali des fois da ngay gis xale boo xam ne moo ko tax ci yooyu lay commencé amee difficulté yoo xam ne ma day tali parce que da ngay mu judd rek yaa jël ko di ko bootee kanam di dem mais luy ngelawu seytaane boo jisee ñu boot loola ci ginnaaw lu tax parce que ginnaaw dafa am yërmande loo lay attaqué ci kanam ak li lay attaqué ci ginnaaw bokkul. léegi boo defee gannaaw moo ëpp yërmaane nga bootee ko kanam parce que bëri na xale yoo xam ne rab bi leen di sonal bi leen seen yaay bootee ci kàdde la ak it bi mu leen di tëral tàkkusaan bi mu leen di tëral timis du ñu xëyat nekk tëral li guddi du ñu taal làmp yooyu dafay dem ba da ngay indil xale bi complication boo tax koo ci gis doom ba bu tëddee guddi mu ngay xàqataay di reetaan koo ci gis doom bi nitu ndox lay doon bu duggee ci doucement rek day taali kon jaw mm. beneen rendez-vous wasalaamaaleykum